je tenais juste à faire benn audio boo xamante ni pour rassurer leen déjà et pour wax leen ni la cette affaire yéen moo ko gën a comprendre mais du la lenn loo xamante ni ça rapport avec le mouvement ça a rapport avec le mouvement parce que actuellement képp kuy bëgg daaneel mouvement bi da ngay jaar ci les leaders mais lii c'est un truc privé boo xamante ni dama ko seq avec un ami d'enfance boo xamante ni vingt ans ñu ngi ànd ak moom mais ànd bi sax du ànd yooyu c'est juste que ni c'est quelqu'un boo xamante ni il il il nous a il a il nous a beaucoup aidé dans le passé surtout pendant la période des vaches maigres il nous trouvait des fois ci suñu appartement fayal ñu trois mois de loyer jëndal ñu euh, ravitaillement pour wax leen un peu li ñu seq que ni on est très proche da doon jógee dakaar dem ba Kaolack seeti sama yaay ne ko mère dama ñëw jël si sama ñaan du fa añ te duma ko sax yëg kon kooku jegeyantoon nañ il est venu ma présenter un cas que ni doomam dañ ko war a évacuer yóbbu ko euh, mu faju ji alors bu ngeen dégloo ci vidéo bi sax euh, di ngeen xam ni lii le gars il a tout fait pour jéem ma sax dugal pour ma wax yenn wax yi on a expliqué même des anecdotes yoo xamante ni seq nañ ko alors je pense que ni ku bëgg a mbuxum visa doo jaar ci consul yéen a ngi xool ci vidéo bi maa ngi doon ut ay contact comment faire pour joindre le consul comme c'est un cas urgent ba gens bañ a jaar ci ay dépôt surtout période Covid bi dépôt amul alors du coup bref lii mooy affaire bi bu leen euh, bu bugguma keneen jox leen beneen explication mais xam naa plus tard demain incha allah je vais faire un point de presse boo xamante ni ce sera Kilifeu face à la presse e voilà sénégalais yi tamit ils ont besoin de de de de de comprendre am na certes ñu comprendre am na ñu comprendre wul et vraiment je vous présente mes plates excuses ku jiitu moom c'est toujours comme si siiw moo mel ni moo metti et jaajëf one love les jaajëf